daf leen nànk nag daf nànk nag bu ngeen ma soxla soxla nag. waaw man nag néew ma fi. Ah, man moom damaa yàq. laay laay ay wax ñu naan di dem rek. waaye yéen nag xam naa ne. pause ay eh, waay pour jàppal. jàppal kaas. kaja jàpp leen. waaw lii daal la. lanu rataay café nga ma jaay du ataaya. kafe moo ko waxaat quoi man man man damay bëgg a même damay bëgg a waat. non kafe mën naa nga naan ma kafe. lii du ataaya. Ah. Hmm, mais père ah. yow tamit nga ma daanoo fu nga ma dama daan. naan la sax kafe la lii kafe gu baax sax du mel nii. lii moom du kafe moom ataaya. mos leen ma. mos leen ma. mos leen ma mos leen ma set. yaay lax no ma oh wabah baax bii mooy ban. ay la la kii kéwél mag mën na koo naan. gone mën na koo naan. ambal ba diis sax mën nga koo naan. ma yëngal jamono de. saa yi bii bii bii nga bii la mu ngi nii kéwél ngi nii moom lay am ay am. jamono. mais am fan ngay dem. yomb 53 gi 53 gi. escarfé. deuxième étage. yaa ko ma ko gën a xam ne naan ko war nga bi. waaw léegi man moo mënta dem numéro bi jox ma numéro bi. sama 77. 77 waaw. jërëjëf waaw 642. waaw double zéro. double zéro 68. mu dal lay wuy ne la loo soxla man léegi bu ma dëkkee si banlieue bi fan laa mën a amee warga bi. dama caaree gaar ca Modam. ah foofu am na fa. laa ilaaha illallah 066. ah 75 76. gaay man kenn du ma ko wax. de bi ngeen def ndànk moom bii la war gaa bii ah, kon kon nañu yóbbu bii. acca da ngeen yóbbu war ga acca kewel waay kewel waay. xollee ñoo ngay njaam njaamum kewel nag kewel. ca war ga ma kewel. nga xam ne kuy ay waay waay moo daam waay moo daam waay ñëw. yow dem nga caare ga dem naa ca moo dam nga ni wallaahi da ngay mën a jënd kewel rek. jënd na kewel su doy doy. gis nga am na bii am na bii pour njaboot. Eh, sama secret feeñ na waay. ay waay faral na ma ne kewel sa kewel la tamit yaa moom sa botum ndaa yaa moom sa warga ay bu la neexee xëy na naan bu la neexee yaay sa mbuum kewel ay kewel kewel kewel kewel kewel kewel kewel ay kewel kewel